ñuy yëkkati ay kàddu yu sant ak kàddu yu ngërëm jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ne ni moom ñoom la ñu bokkal senegal li ñuy njëkk def nag mooy siyaare ki nga xam tey ji moo fi toogal Seexul Xaddim di sëriñ taxa di ñaan yàlla yan bi yàlla na oyof ci kawam di ñaanal suñu jàmbaar ji fi jóge di Cheikh Sidil Mokhtar yàlla tas ñu ci barkeem te wane la ko maama yu tedd di yëkkati ay kàddu nag yuy sant ak ngërëm ci mbollem njabootuk serigne bar ndax bi magal gi xam ngeen ni ni mu len ji ak namu daan demee dafa bokul ndax serigne touba dafa daan nek di ko mu fi ci fan yu new ñun ñu doye di ñu mata di ñu tok ci place bam togal fasiyene ko magal kon dana melni magal gogu du mën melni nam daan mel waye li tax ñuy sant yalla nak moy bu fekkoon ne bokk yi dañ seetaan mën naa am du egsi fi mu egsi waaye nag mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Cheikhul Khadim dafa mel ni ñoom ñoo ñu ëpp yéene ci bis bi ba taxawaay buñ ci waroon a taxaw ñoom taxaw nañ ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk kon nag ci turu sëriñ Moustapha ak i rakkam ñoo ngi sant mboolem koo xam ne ni bokk nañu yow Cheikhul Khadim di wëlbatiku nag di Serigne ci turu sëriñ Moustapha. di sant rakkam yi ak doomam yi nga xam ne ni ñoom la yëkkati woon jox leen liggéey bi ngir ñu taxawee ko ñi ñoo xam ne nii gone yu am jom lañu waaye mën nañu duñuy gone sax xëy na at yi mooy tuuti waaye boo bokkee ci Cheikhul Khadim liggéey bu ñu lay yëkkati jox la ko te nga nangoo ko Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim a koy yoral boppam ba tax na yaakaar ji ñu amoon ci ñoom def nañu lépp ba mu mat sëkk sëkk sëkk li ko commencé ci sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne moom moo nekk porte parole kër gi ñu teg ma ci wetam ma nekkoon coordinateur bi maa ngi sant mboolem koo xam ne sëtub sëriñ Baara nga bokk ci commission ak nga ñàkk bokk ci commission ñoo ci bokk yem ndax ñëpp mënuñoo bokk nekk ci commission waaye kenn ku ci nekk moo xem moo xam xelam xalaatam jotam ak naam yëpp jox nañu ko ba mat sëkk ànd ko ak ñun kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax ci turu sëriñ Moustapha di ñaan ci seen darajey maam yéen a xam li ngeen soxla wala ngeen bëgg ko yàlla na leen ko soleen seen maam defal di walbatiku nag di yëkkatiwaat ay kàddu yu jóge ci sëriñ Moustapha jëmee ti li nga xam ne nii mooy matérielu sëriñ muy taalibe yi ndax ab sëriñ amul loolu taalibe yi ab sëriñ mënul dara lépp taalibe yi ko mën kon nag bis bi bu demee ba jag moom ñu ngi ciy sant taalibe yi bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla ak sëriñ Touba mi nga xam ne moom la yaakaar te doyloo ko ñoo xam seen bëgg-bëgg ak seen i méb yàlla nañ Serigne Touba jiitu. di mbool di sant ñi nga xam ne nii ñoom la ñu bokkal Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal diine ji ndax lu jiitu lii waroon nañoo def lii sax sant leen ci taxawaay yu màgg yi nga xam ne taxaw nañ ko bi ñu ñàkkee suñu jàmbaar di Cheikh Sidi Mokhtar ndax ku ñàkk kooku bu la nit ñi seetaanoon dana metti lool. waaye alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne nii lim liggéeyal suñu borom bi suñu borom fay ko ci bisam bi. ba nga xam mboolem umma islam bi yëpp àndandoon nañ ñëw ànd ko ak ñun ba mu oyof ci ñun kon ñooñu ci turu Serigne Moustapha ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di wëlbati ko di sant it comme ni ko Serigne Mountakha waxee mooy àdduna si ñaara fi nekk temporel bi ak spirituel bi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew met di ko commencé ci président de la république ak mboolem gouvernement bi ak mbooleem ñi nga xam ne yor nañu ay chambre ñoom ñëpp taxawaay bi nga xam ne nii war nañ ko cee taxaw taxaw nañ ko ci ba mu mën sëkk kon loolu Serigne Moustapha nee na mi ngi leen ciy sant bu baax baax baax a baax li muy mujj nag mooy Serigne Moustapha nee yéen jabootu Serigne Bara ngeen jàpp ni moom Serigne Moustapha du seenub sëriñ de seenub taalibe la bu nekk ci seen kanam di fas yéene li ngeen xam ne nii moom ngeen bëgg a liggéeyal Serigne maam di ko jaarale ci moom moo xam nu mu toll ak nu ngeen ko bëgg saa su ko yëgee. fap na laxasaayam takku ko ci liggéeyam fasiyene and ak yeen liggéeyal serigne baara bob kon nak ñoo ngi sant ñepp di le ñaanal nit mbollem wa senegal jamm am ci réew mi ndax jamm rek mo mo mo baax ndax lu nit am te amo jamm amo dara lepp lu nit di ñak te am jàmmit ñàkkoo dara di wëlbatiku di sant mbollem la presse senegalaise duñu tuddu ben organe baye ben organe dal mbollem ko xamni yaangi ci tas soo fi ñëwul sa ndaw ñëw na wala sa beneen représentant boo xam ne yaa ngi bokk ak moom di liggéey ñëw fi kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ndax lii ngeen ñuy deful defal mënaluñ ko suñu bopp ndax bu fekkoon ne taxawu leen bu nu waxee suñuy wax ci saal bi ñu ko wax rek la yam waaye nag li ñuy wax bu fekkee mën naa tasaaroo ba waa àdduna mën cee jëriñu si yéen la ko jaare kon yéen tam ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ak Sëriñ Tuubaa yokk seen i maqaama ñi ci moom seen i organe yàlla na yàlla demal ba mu doon télévision yu mag ñi nga xam ne amaguñ ko tamit yàlla na leen yàlla may loo xam ne dinañ ci mën a liggéey Cheikhul Khadim noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah